L'eau multimédia moi l'un des émission Assalamu al Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, angle Paul Dakar. L'eau multimédia spécialiste de informatique bureautique divers matériels réseau et accessoires, accessoires ci ay y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 سنتي على بور سبحانه وتعالى تيجل كي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعي نغا خامني نيوم ني اند اك نيون تي جوتايو السلف مع القران نيغي نيو تي زياره بيبي جم دي واخنا يال يالا واتي تي ين بركب القران الكريم نين ديكو امي تي كيرغي نغا خامتيني مومو دي لا ميزو دي كورا بارك الله في العاملين فيه جميعا يال يالا بور سبحانه وتعالى بارك الواخ نيو وي بالي تي سونو جوتايو السلف مع القران jéego yi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam daan def ndax ci moom la yàlla sàmmee te wattoo li nga xamante ne moom mooy alquran al karim tey nag ñu andi li nga xamante ne moom mooy taalimu nabii sallallahu alayhi wa sallam alquran bi nafsi yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam jàngale bi mu doon jàngale alquran maanaam moom ci boppam moo daal di nekk ab sëriñ daara laa <laughs> ilaha illallah di jàngale alquran al karim ñan ñoo nekkoon ay dongam as-sahaaba radiyallahu anhum ajmain la ilaha illallah sahaaba yi am nañ lu rëy ti yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam di jàngale alquran di ko jàngal ñan as-sahaaba kon euh, li nga xam ne moom mooy juróomeel ba ci wane ne yonent yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam mooy jéego yi mu daan def pour euh, yàlla ci moom la awee pour ñu gën a wattu alquran moom mooy da doon toog di jàngale li nga xam ne mooy alquran ku ci nekk ci saxaaba yi muy xool sak mokkal ndax wér na balaa loolee nga koy jël ko toxal ci taabi'an ya taabi'an ya tooxal ko ci taabi'u taabi'in ya mu yegg ci salaf saalih ba mu yegg ci mag ñi ba mu yegg si ci ñun kon alquran bi nga xamante ne ñun moom la nuy jàngatee ji moom la yàlla wàccee woon ci yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam mu daal di aw ci jiilan an jiil bi tawaatur dar dara yokku ca dara wàññëw ko ca mooy alquran ji nga xamante ne moom mooy alquran alquran ju wér yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo doon jàngaleel boppam ñi nga xam ne moom mooy eh, eh, jullit ñi yàlla buur bi subhanahu wa taala daal di koy digal ne ko mu jàng alquran ci li nga xam ne moom mooy mukth mooy lan at tuda wa tamahul maanaam mu jël tempsam di ko jàng ci diir bu yàgg maanaam moo tax ñun duñ di yàkkamti donga bi dañuy fexe ba alquran bi mu koy nafar di ko jàng bu baax a baax ñuy xool mokkalam di ko déglu ndax eh, jàng al alquran gu wér a wér la dong gi di jàng ndax dara soppeeku wu ca waaye tamahul ci li nga xamante ne moom mooy ndànk li ko waral kay yax kay yaxfadu lafdahu mooy tax ñoom ñu mën a mokkal li nga xam ne mooy baati alquran alkarim yi waaye wa yafqahu maanaa kon ñaar yi dafa war nit ku nekk xifdu lafdi alquran wa fiqhu maaniih ay fahmu maaniih mooy mokkal baat yi loolu moom mooy dugg ci ilmu alqiraat maanaam ak i riwaayaat yeeg turuq yi yëpp maanaam yooyu day dellu ca baati alquran alkarim ya waaye suñu delloo ca maani ya moom mooy dugg ca ilma tafsir wa ma ila dalik waaw kon ñaari yi képp kuy bokk ci ñooñ alquran na ko bàyyi xel mooy nga xifdu li nga xam mooy nga xifdu li nga xamante moom mooy al alfaad ay kalimatul quran كما هي أي كما نزلت من السماء إلى الأرض نمك البات القرآن الكريم من حسب حسب القراءات وكذلك الروايات waaye nga góorgóorlu bu baax a baax ci beneen wàll gi nga xamante ñu bare bare duñ ko xaar ca daara ja mooy leen fahmu maani suñu mokkalee alquran al karim ba pare ngal la bu ñu jàppeeti suñu bopp ay masaayix ak ay cheikh mokkal nañ alquran waaye nañu góorgóorlu bu baax a baax a baax xam-xam ya cay topp ñu daal di ciy góorgóorlu suñ ko mënta xaar ci daara ja sax di jàngale waaye di xool nan nga xamante ne yan pexe la ñuy def wala am benn cheikh boo xamante ne saa yu ñu wàccee dinañ mënti dem ci moom wala am cheikh boo xamante ne dina la mën a beral ay heure yoo xamante ne donte da ngay euh, da nga koy woo par téléphone moom mu lay jàngal parce que ñun ñëpp dañuy continuer di jàng parce que al muntahuna maratib wala go dem ña nga xam ñoo ci sut sut ñoom dañoo sutante kenn ta jéxal alquran mënu ko jéxal miya bil miya la la la la wa fawqa kulli dhi ilmin eh alim ko raw amna kula raw kon ka nga raw jàppale ko kala raw jàppale la wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu ala nasi ala mukthi wa nazzalnahu tanzila moy limi wax sank li taqra'uhu ala an-nasi ala eh ala mukthin manam ci ndir bañ ko yakamte waye wa tamahul wa nazzalnahu eh تنزيلا امام البخاري دا فاي نيتلي حديث بوبيغا خامتاني تي ابن مسعود رضي الله عنه لن كوجيلي ابن مسعود نيني والله لا اله الا والله دا فا غينتي يالا بربي سبحانه وتعالى كوي غين غينال سي يالا بالله والله تالله لقد اقسم على الله خالق السماوات والارض الواحد القهار من له ملك السماوات والارض عالم الغيب والشهاده كوي غين غينال سي يالا كوي غين غينال سي يالا من والله ابن مسعود موي mooy من واتنا ne wat naa ci yàlla ne laqad axadtu الله fi rasulillahi sallallahu alayhi wa وسبعين سورة لا إله إلا الله يا له من شرف يا له من فخ يا له من كرم جرنا جن من جن ناتي يلا نه جلي ناتي لم من ينتي يلا محمد عليه الصلاة والسلام لطلق جروم نعرف كسار أكيد توب ما نم لطلق جروم نعرف جروم نعرف ولا جروم نعرف جروم بن ولا لكو جيجن لا إله إلا الله بدعة وسبعين سورة أخذه أخذها من إيه؟ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كن جرنا جرنا نتلي جرنا نمو لا إله تخيلوا معي إيماجين لين قطوك ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام يلا واتي موم وحي بي عن طريق الجبريل ينتي على محمد دي القرآن كوي ديك لا إله إلا الله صحابي لو نيخ لن أمون موتا ابن مسعود داري كوي نتلي تسيغ بي أكيفية بي mu giñ ne jëlee naa ci lu toll nokk juróom-ñaar fuk manam 70 yu tek manam 77 76 75 wallahu aalam jëlee na ko ci lamiñ yonent la Muhammad alayhi salatu wassalam niki nonu amna benen hadith bo xamantene bukhari ne moko moom moo ko ko ci Ibnu Mas'ud ba léegi moom muy xamle ne kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam عبد الله بن مسعود nee دانيو نيكون اك يونتي الله محمد عليه الصلاه والسلام فداه ابي وامي وانزلت عليه والمرسلات نين ني دادي واتي تي موم سوره المرسلات لا اله الا الله سوره المرسلات وانا لنتلقاها من فيه نين يونتي محمد دي جانغ سوره المرسلات نون نك نكوي جيل مانام نكوي ديغي ديكو جانغي تي غيمنيام لا اله تي غيمنيام مو ني جانغال سوره المرسلات باسكو فك واتي تي موم تي ساسي لا اله الا الله يا له من كرم كون داي واني ني يونتي محمد عليه الصلاه والسلام da doon toogal boppam di jàngal saxaaba yi alquran moom moo leen doon jàngalal boppam kon saxaaba ku nekkoon seen sëriñu daara annabiyu sallallahu alayhi wa sallam kon yonent yàlla Muhammad bokk na ci dawaa yi nga xamante ne moom la sàmmi alquran moom la fexe ba amaana gi ko yàlla jox mu daal di koy saxal daal di koy tarsiix daal di koy tasbit fi qulub qulubi saxaaba mooy lan di leen jàngalal boppam ni ki noonu itam al imaamu ahmad rahimahullah day nettali xadis boobu nga xam ne mu ngi ko jëlee ci abdullah ibni umar radiallahu anhuma mu ne kunna aw kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuallimuna alquran fa ida marra bi sujudi alqurani sajada wa sajada maahu abdullah ibni omar nee ne yontu yàlla muhammad daf ñu doon jàngal alquran yuallimuna alquran fa ida marra bi sujudi alquran saa yu yeggee ci foo xam ne palaasu sujjóot la ci alquran sajad mu daal di sujjóot ñun ñu daal di ànd ak moom sujjóot waaye léegi da ngay dem ci bërëb boo xam ne jàng nañ fa alquranu karim ba mu jeex doo gis kenn sujjóot <laughs> loolu du sunna sujjóot gis nga soo yeggee ci sujjóotu tilaawa nga daal di sujjóot ñaan yàlla loo ñaan yàlla def la koy may benn te iblis day yuuxu jooy ñu ne ko lan la mu ne umirtu bi sujjóot yàlla daf maa digal ne ma sujjóotal ko ma lànk xoolal doomu aadama yàlla daf koo digal mu daal di sujjóot man sama ñàkk sujjóot tax na ma texee di safara laay jëm moom sujjóot bi mu sujjóotal yàlla tax na moom aljana la jëm xoolal nga yegg suratal aaraaf suratal naxal saar yooyu yëpp nga xamante ne am na ay sajda ba yegg ci suuf soo ca yeggee ngal la wàcceel nga daal di sujjóot jéggalu yàlla say bàkkaar ñan yàlla bur bi subhanahu wa taala say soxla yàlla dal dilakoy la parce que yentibi sallallahu alayhi wasallam sallam su ngeen jangati alquran ñan len yàlla seeni soxla benen hadith bo xamanteni imam muslim moom moo ko mu jele ko ci ibn abbas radiallahu anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن عبد الله بن عباس yonent yàlla محمد عليه الصلاة والسلام daf ñu doon jàngal taaya mooy taaya altashahud comme ni mu nuy jàngale kon day wone ni yonte yàlla Muhammad daf leen daan jàngal alquran fofu itam am lu mu fa tontu deg na kenn ci ñi yàlla natto xel natto xel lay wax tok na ci benn émission ci benn télévision yagul muy xam le yonte bi daanul tay ak yu mel nonu ngal la ngal la ngal la ngal la bala ngeen di jema réeral nit ñi sa dem len jàngi waaw waaw bëgguñ di tontu ci yëpp kon hadith bi daf la weddi waaw demal jàngi bu baax a baax baax so demé sax ci riwayat ibn rumh kama yuallimuna alquran la andi xam nga ki كما يعلمنا سورة من القرآن لا ابن عباس أندي ورواية ابن رمح كما يعلمنا القرآن لا أندي كنيار حديث داي ونني آه، آه، اختلاف وتنوع على داي جنياتل آه، ني على محمد عليه الصلاة والسلام دون جنجل صحابي سو دمي إمام البخاري بليغ ممغينة لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه موي خملني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن يونتي على محمد عليه الصلاة والسلام دفنيو دون جنجل الاستخار مانم لب يدفرك yonte yàlla Muhammad nañu nañu listixaar dal di laaj dal di ci laaj yàlla ndigal dal di koy setlo yàlla ndax baxna wala det waye listixaaru legi mom wax deug fi yàlla waxuma listixaar yo xamne ci ay njeber lay tege listixaar ñaanu bopam la teud dal di setlo yàlla buur bi subhanahu wa taala ne yàlla yo ya xam xawma yàlla yo ya man manuma yàlla su gëne ma ngi lay ñaan nga sotel ko yombal ko gawal ko yàlla su fekke ne gënul ma ngi lay ñaan nga wul batima ca andil ma leneen xamanteni mom mo gën al wahdaniyat al wahdaniyat julit day am tawhid wékkul wa may tawakkal ala allah fa huwa hasbuhu ku wekku ci yàlla yàlla daal di la buur yàlla di lay doy ci lépp yàlla daal di a yombala lépp loo xamante ne moom ngay wuutu kon hadis yëpp day wane ne yonti yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam toog di jàngale alquran kon suñu waxee sëriñ daara jàngale alquran a tax <laughs> sëriñ daara jàngale alquran a tax koo fi wax sëriñ te nekkul di jàngale alquran man de jàppewuma ko sëriñ matul sëriñ sëriñ day jàngale alquran al karim sëriñ mooy ki lay jàngal koo xam ne soo demee ci moom mu jàngal alquran jàngal la sunna jàngal la ne la yàlla kenn la benn la mooy ki man mooy ki moom mooy ki sañ yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mooy ki fi gën moom la yàlla yónni nañu top yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalam koku mom moy sëriñ kon sëriñ day jàngale alquran ndax yonent yàlla Muhammad da don tok di jàngale alquran alkarim te yàlla nee nanu nanu roy yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalam ma kana min sawabin fa min arrahmani wa ma kana min khata'in fa min nuqsaanu sallal ilahu ala an-nabi wal alihi ma labba mulabbin aw tahallala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes l'eau multimédia. l'eau multimédia. 27 avenue Émile Badian, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste le informatique bureautique divers matériels réseau ak accessoires ci ay njëkk yu xarañ. Yeen ordinateur yi ngeen bëgg yi ngeen di set ci internet bi ndekete l'eau multimédia am imprimantes ko ay imprimante yi ngeen bëgg yëpp ci qualité ak consommable yi ngeen soxla yëpp lépp multimédia am Téléphone 33 823 81 87 ou le 77 998 0404. L'eau multimédia, l'innovation. Notre passion.